asalaamaaleykum ku dugg mu partager rek ñu waxtaan réew mi moom yaakaar naa ni ni ma ko gisee muy doxee nii dégg nga warul continuer waaw waaw parce que ay sàcc yu fi nekkoon ay sàcc yu fi nekkoon ñu bëgg leen bàyyi may leen doole ci plateau yi ñuy wax n'importe quoi wala n'importe comment loolu noonu warul am fii quoi ci réew mi dégg parce que façon nit yi ñàkk jom yi ni gis nañu seeni nit di daw de gis nañu seen nit yi di daw lan moo tax ñuy daw kenn lan moo tax ñuy daw ñu bëgg wëlbatiku ñàkk jom bëgg a toog ci palaato yi di saaga nit ñi ñu may wax ay affaire u démocratie ah ak yeneen ak yeneen te ñu constitution bi ñu ni warul am saaga ñu def ko fi ñu leen ñu bàyyi ñuy dem seen kër lii du dëgg du yoon justice bu fekkee ne changé nañ ma ko wax ni ma justice bu bu changé wul nañ ma ko wax waaw nañu wax nit ñi ne justice bi changé wul ñu ne waaw ñu ne vraiment kat affaire yi changé wul waaw xam nga Cheikh Omar Diagne am na lu mu génn wax nee na dañ rax jë la woon la woon mi ngi fi ba tey loolu la ñu wax de dañ ñoo rax moom loolu la wax kon c'est-à-dire am na lu xew. léegi nag di bëgg sóoraale yan nit ngeen ñuy sooraale gis ngeen ni saa waay quatre-vingt nangam pour cent votel nañu gars yi Sénégal yëpp ñoo ànd ak ñoom. léegi sénégalais yi voté dina leen neex ñuy ñëw di saaga seen leader ah ay doomi xaram yu tekkiwul dara di saaga seen leader loolu dina neex sénégalais yi voté ah ñu naan ay karab-karab jàpp leen ñëpp kenn ñemewu ci kaso ndax Macky Sall bi mu yoree yar yi di dóor ñoom ñëpp a noppi amul kenn ku ci ñeme kaso amul jàpp mandat kii jàpp seen ndey dugal ci kaso bi wala ñu xool réew mi ñu tas ko ñu xool leneen lu ñu def dégg ñu ngi bëgg a amer de sénégalais yi quoi ay imbéciles yu tekkiwul dara dégg nga di nekk ci palaato yi di wax lu leen neex ñu naan ma ay affaire u démocratie ak dugg na fii génn fii dara laa leen wax dégg nga loi bi bu doon ay démocratie du ñu wax ni ku saaga wala ñu kii la premier euh, kii article quatre-vingt dina dal sa kaw kon loolu du ca nekk dégg nga bu leen bàyyi benn doomi xaraam muy ñibbi këram ay tàppet lañ ñoom ñëpp amul ragal fii amuñu fi benn ragal wala kii ñoom ñëpp ay ragal lañu duñu ay góor kuy faral nit koo xam ne dafa sàcc sa sa alal nga ni danga koy faral doo góor yàlla loolu mooy dëgg sama gars yi loolu mooy dëgg nañu waxante dëgg dégg nga ay doomi xaraam yu tekkiwul dara laal boo leen xoolee rek xool seen jëmm yi xam ni ay doomi xaraam yu tekkiwul dara lañu dégg nga di bëgg ñëw naan dañuy diaboliser réew mi réew mi demagul fenn ñu ngiy fay ay bor yoo xam ne ñoom bàyyiwuñ ko fi woon ki ñuy jàppale moo ko fi bàyyi woon ah ñu naan ay mille cinq cent mille mille cinq cent milliards ay relevé de compte ci benn nit ah ñoom ñu bëgg di ko weddi te xamuñu fu ñuy teg seen tànk ay or yu ñu rawale ay doomi xaram di génn di leen ko weddil te eh, mënuñoo am dara ci kaw taabal bi léegi nag ñoom seen lay nee na Sonko moo fi doon nekk di wax lu ko neex ma Macky Sall te Sonko lu mu mës wax dafa yor ay preuve doomi xaraam yi kenn yoru ci preuve koo ci woo du indi preuve dañuy fen dégg nga Sonko lan moo taxoon Macky Sall ñemewu ko jàpp c'est parce que la mu doon wax dëgg la léegi nag justice bi na xam loolu dégg nga na jàpp seen ndey ñoom ñëpp dugal kaso kaso bi kenn da ñeme kaso koo ci fanaanal ñaari fan kaso mu def ni ba jaxate def laal glace dégg nga ba mu tàngaat ñu ñëwaat waaye noonu rek jàppaat seen ndey dugal ci kaso bi te ku ñu ci jàpp benn boo ñëwaatee ta la ngay tëddaat mooy gën a yàgg la nga tëddoon bu jaral na leen ko Macky Sall jaral na leen ko kay nañu def dégg nga li taxaw ay vote am pour ñu xam kan moo gañe la léegi ñu xam nañu kan moo gañe nañu dem ñu seen ndey dem liggéeyi wala mënuñu ko dégg ñu téye seen ndey dugal ci biir kaso bi loolu loolu dong laa gis amul leneen di toog fii di wax naan ay sonko day fen suba ngoon guddeeg bëccëg amuñu benn lay loolu lañu ñu campagner sénégalais yi sanctionné leen ñu bëgg a jëlaat ñaari fan ñetti fan jëlaat plateau yi di ñu fontoo naan ay sonk day fen ak Diomaye yu baax ak yu kenn xamul ñu jàpp seen ndey dugal ci kaso bi procureur bi fi nekk bu fekkee wala ministre de justice mënuñu liggéey bi nañu jël xale yi ñu jox leen ko nañ ko jox Ngagne Demba Touré dégg nga mu remplacer pas bii nii dégg nga euh, euh, procureur wala ku mu mën a doon nañu jox keneen ak keneen ku pare pour défendre lider yi dégg nga ñu jox leen affaire yi ñu zéro ko man lii laa gëm dégg nga gëwuma ay affaire u gars yi ay affaire u démocratie Macky Sall nit da doon reetaan mu tëj la au moins kii toog na ci plateau bi saaga premier ministre ñu xam ne kii saaga na premier ministre ñu tëj ko parce que sénégalais yi ñoo ko demande quatre vingt pour cent sénégalais yi yi nga xamante ne ñoo ko voté ñoom ñoo ko demandé doomi xaraam bu fi génnati saaga fi ku mu mën doon ñu tëj sa ndey ci kaso bi point barre loolu mooy dëkk waaye yow bëgg a bàyyi dëkk bi naan ma ay démocratie la woon wonni na fii dara du fi wonni parce que baadoola doo ko wax ni que doo ko wax ni que saa yu affaire yaa ngi noonu dégg nga gaa yaa ngi abusé ah gisatuma fi benn waxu xam-xam bu dul génn di saaga foo tourné rek yaa ngi gis kuy saaga parce que dafa mer parce que bu sañoon Macky Sall toog fii di rey Sénégalais yi dégg nga ñun liste lañ ñu defaloon ñii dañ leen ñuy tëj ñii dañ leen ñu exilé ñii dañ leen ñu rey Moustapha Diakhaté moo ko wax dégg nga ba mu koy wax sax góoma ko woon waaye dégg naa list bi am nañu ni am na ñu ñu pare woon pour rey leen ah c'est parce que dañ doon wax dëgg c'est parce que dañ doon xeex démocratie mais ñii fi nekk lan la ñuy xeex ñii fi nekk ci diggante bi ñoom lan la ñuy xeex ah dégg mi ngi noonu voilà mi ngi noonu dégg nga yéen tamit ñi leen bëgg a xeexal dëgg-dëgg da nga leen ñuy fàtt yéen passif ñi nga xam ne dañ ñu bëgg xeexal da ngeen fiy nekk naan ay noo kii ni muy waxee kii dafay saaga yooyu gars yi bàyyi leen ñuy saaga seen ndey yi ñu daw dégg nga léegi moo tax du ma di jaay ay yiw kuwaay yiw la ñuy jaay Macky Sall bi mu fi nekkee kan moo liggéeyoon ah ñaata usine la tëjoon usines yooyu yëpp ñu ngi fonctionné ay doome xaram loolu metti leen ñu ne dañuy génn di saaga Sonko wala Jomaay ah ñu leen ñu bàyyiwaat ñuy ñibbi seen kër di fëgg dënn pour lan loolu te article quatre-vingt bi nekk fi tooñul kenn kan moo ne demal nga teeb ci tele yi nga saaga ji ana sénéra xanaa sénéra amu fi sénéra boo xam ni lu ñàkk fayda la doon tëjee nit ñi ah di tëj seen tele yi xanaa amatu fi lii mooy démocratie ah mais nañu waxante dëgg ngeen ñu naan da ngay yiw yiwlu ku jóg di saaga ba ba ku jóg sax di contre gars yi waa Pastef nee nañ dañuy yiw yiwlu léegi dañu lay dañu lay dañu lay maanaam bañ a partager dañu lay seetaan bañ la mais man loolu taxumaa jóg man man nee naa la ñaari nit buñ may seetaan li ma fil pour wax ko dinaa ko wax man bokkuma ci game boobu quoi waaw bokkuma ci game boobu xam naa ne du ma mës a toog ma war projet bii dégg nga ña àndaloon di xeex ak ñoom ma wëlbatiku di leen saaga loolu du mës a am sama côté man sama côté man parce que xam naa li may xeex man ñaata nit yéen Pastef ñaata nit ngeen àndaloon seen page yi ngeen jàppale leen ah ngeen jàppale leen ba ñu am visibilité ñu wëlbatiku di leen saaga ñaata nit ñaata nit mën naa lim ñaata nit ñaata nit mënoo xolal man damay damay ruus sax yenn saa yi quoi damay ruus jamono yi ma gars yi di boycotté am nañ gars yi ñu àndaloon tey ñu ngi wëlbatiku di leen saaga waaw te man la taxoon man may may génn ma ngeen jàpp ni gaam dama koy génn parce que politique bi fi gars yi indi woon la dugal ci sëriñ si ñu ñuy seetaan ndax boobaak léegi gis ngeen ñu ñu wax fi benn sëriñ lenn parce que ñii bu soobee yàlla tant que ñu ngi dund ak ñoom dégg nga gis ngeen système soixante ans bi ay màggat lañu ay pas la ñuy yebal parce que fii demi pas ñuy saaga nit ñi xoolal ñun mën nañoo taxaw ak jàkkaarlook ñoom ba jëlee leen fi cinquante ans doogay commencé indi démocratie bu dëggu bi bàyyil ba ñu suul seen ndey ñoom ñëpp ngeen doog a commencé teg mbir mi ci yoon mais heure bii dafa teel pour naan ay affaire bi maanaam nañu bàyyi démocratie garaawul ku mu neex mën nga saaga Sonko déedéet dafa teel dafa teel de nañu teg mbir mi ci yoon man visibilité taxumaa jóg de waaw loolu laa bëgg gars yi xam te li ma metti moom kenn mënumaa tere ma wax ko même bu dee benn nit man dinaa ko wax après ma avancé waaw dem doxi sama soxla waaw moom moom ma parce que li ma metti laay bëgg wax aw ma feneen fu ma ko waxee aw ma xarit bu may toogal di ko waxtaaneek moom aw ma leneen lu dul toog fii li ma metti ma wax ko lii xew mii neexul saa yoo tourné ñoom amuñu benn lenn loo xam ne ñu ngi koy teg ci kaw taabal bi lu dul fen fen fen fen day fen di saaga ba doyal dégg di saaga ba doyal daal di demaat tëddiwaat nelaw dégg nga suñu miil nanga milliards yi ñu def ci relever ay compte day day leer nañ day génn ku fi sàcc alalu askan wi da nga ko génne xoolal général Moussa li mu yor ci immeuble ci benn côté xanaa gisu leen publication bi ñaata immeuble ci biir ndakaaru bi ñaata immeuble yoo xam ne ma nga taxaw lépp leeral na ko nee naa leen bu ñu tribunal bu ngeen ko mën a yóbbu ngeen tekk fa ni que kii salaire lii la am waaye lii la tabax dana xam lan moo taxoon général Moussa Fall doon rey xale yi waaw wala déet kon nit ku ñàkk jom dana ñëw fii naan ñooñu la faral di saaga sonk ñu naan dañ koy bàyyeeg fair play yu kenn xamul ah lu mat ñaata kër euh, euh, euh, moom la moom la basiiru Gueye dégg nga ñaata kër ba temps yi dégg naa ma ngay dem jaayi kër yi te du ko jaay sénégalais étranger la koy jaay ba nguur gi teg ci loxo nguur gi teg na ci loxo lan moo tax muy dem di jaayi ay kër dégg nga kon ñii dañoo pare woon pour rey sénégalais yi defaloon ñu ay liste ñu ñëw fii naan dañuy dem ak ñoom ci ay démocratie pour lan loolu dégg nga yàlla dafa ni li bu la nit tegee dara xoolal li te li mu la teg nga teg ko ko dégg nga ay woo leen ñaari fan bàyyiwaat leen ñu ñibbi doyut loolu mooy dëgg liñ ñu tegoon buñ leen mënee rey sax ñu rey leen encore dégg nga loolu mooy dëgg waaye yow pour lan loolu dégg nga gars noonu ñii ñoo pare woon ñii defaroon nañu list pour rey yenn sénégalais yi man mii moom xam naa ne ko man duma dara dama doon ñëw Sénégal rek gars yi ma dégg nga te duma dara nag dégg nga parce que yaakaar naa ni dafa am ñoo xam ne dañ leen tànn ni ñii sagaru nit lañu ñii dañ leen a war a rey waaye ñii xëy na am nañu diplôme ñii waruñu leen rey dañ leen war a tëj man de noonu laa ko jàppee defal ñu liste pour rey ñu defal ñu liste ni ku wàcc ci aéroport ñu tëj la doomi xaraam yooyu noonu ñoom ñoo fi nekkaat dégg nga ñi doon tere ay saaga ñi doon tere ay ay ay wax ñoom ñoo fi nekkaat tey di saaga ci télé yi ñu bàyyi leen pour lan loolu lii ba kañ ah ah dégg nga système bi changé gul de dégg nga système bi changé gul lu leer la la wax amaana sax sonko ñi la wëraat ngay liggéey bëri na ci ñoo xam ne bëgguñu la te bu ñu sañoon nga faqastalu parce que yéene wuñ la li nga nekk nekk leen ay nit te rang yi jub lii mooy dëgg na rang yi jub man dégg nga di bàyyi gars yi di def lu leen neex pour lan loolu di rey sénégalais pour lan loolu noonu ah Moustapha Diakhaté da koy woo ñaari fan nga daal di koy bàyyiwaat léegi ñu takkaat rajo yi naan gis ngeen ku yëngu ñu woo te fekk na lañu la ñu woowee ñoo ko def nañu Moustapha Diakhaté loolu lu ma waxoon fii mu leer nañ Sonko dinañ ko jàpp waxuloon loolu ba mu koy wax gëwuma ko woon te am na ñii danañ leen tëj ñii danañ leen torturer waxu ko woon waaw wala déet ñu fi ay nit sànni ci géej gi ñu ne noonu ñooñu noonu dañoo war a dem fair play ak ñoom pour lan loolu ah dégg nga ku ñu fi dénk poste mënuloo ko nga dégager amuloo fit nga dégager di mag ñi ñoo gën a ragal moytu di jox ay affaires yoo xam ni stratégie yoo xam ni ay mag ngeen koy jox ndaw ngeen koy jox ndaw day am fit dégg nga lii mooy dëgg lii mooy dëgg ah dégg nga fii ay tapalekat ñoo fi bëgg a nekk continuer loolu du yoon. waayow doo fi dégg lenn lu am solo ci beneen côté bi nee naa leen man opposition bi ma bi ma bëgg mooy kii ñëw di xool manquement sénégalais yi mu di ko wax donte kon duma ànd ak yow mais dinañ la apprécier mais ñi fi ñëw ban programme la am lu lul toog saaga di saaga article quatre-vingt amatu fi ñu jàpp suñu président ak suñu premier ministre di wax lu leen neex ñun ñu bàyyi leen noonu noonu naan ay fair play lawoon woon ni nag fii la mbott mi jaar ak ganaar geeg kaña gi ah, ay baadoolo yu xam ni xamuñu yeelaa duñu woo seen ndey dugal leen rëbës ah doome xaj yi duñu leen jàpp ñu tëj seen ndey ban njariñ la ñu amal réew mi lu dul ñoo buukale woon ci ginnaaw Macky Sall ñuy tëj ak a rey ak a waa wala déet ah kon Macky Sall mi ngi doon def lu ko neex milliardu sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi koy wax bëgguñu ñu wax ko léegi dañuy wëlbati ko di saaga nit ñi ñu bàyyi leen nonu quoi comme ça ay gor jigen ko ci gis amul won fit ludul and ak Macky Sall mais amul won fit ñu am fit waaw dañu xamé kan moy gor yalla deug deug nga xam ko deug nga fa rew mi di metti nga lok Macky Sall deug nga ñoñu ñoy gor yalla parce que ki li la doon def ci sénégalais yi di tejje ka ray amna ño xamni xamoon nañ ko dañu jambar lok ñom bañu ray le mais xamoon nañ ni ray katu nit la mais terewul ba xeex jotee dañoo jël seen xel yi def ko lu dul xeex boole ko boole ko ak gëm yàlla ñu naan ma tey ay affaire u démocratie waaw la woon wàññiwul kon dindi leen article quatre-vingt bi dindi leen ko sànni ma ni Sonko ñii fi nekk nii yor justice bi dañoo bëgg yow ngay impliqué wu di wax dégg nga te ñoom dañ leen justice bi indépendant na kay nañuy dem di defal seen bopp seen liggéey sans premier ministre di wax naan kii di dem yow nan lañ lay dénkee mais sëriñ premier ministre moo lay signalé ku yor ngànnaay ak ku yoru ngànnaay kon kay yow mënuloo premier ministre moo la koy signalé léegi bu ñu demee jàpp ñu ne wala premier ministre moo ko signalé wala premier ministre dafa war a toogee njaaxaan naay ah xanaa dénkuñu leen chaque jour su ma déggee seen wax ñu naan woo nañu président bi ba xam lii wala laa xanaa dénkuñu leen président bi est-ce que bëgg na ngeen koy woo man mii sama bopp bu ma defee lu ngeen ma war a woowee woo leen ma loolu mooy dëgg waaw keroog ba mu ne ba ñu nee dañoo am ñu taali seesu Barthélemy Dias lan laa fi wax dama ni même bu dee Pastef la ñu bokk nañ ko jàpp waaye gëw ma ni sax ñoom ñoo ko def gëw ma ni ñoo ko def waaw wala déet ba léegi dara dara daade dara dara sottiwul ci mbir mi moom même même ci euh, problème boobu waa Pastef la ñu woode mais ñu jàpp ñi ko bu fekkee ne ñoom ñoo ko def waa Pastef ñoo ko def mais ñoom ñu jàpp leen ña ko taaloon ña taaloon siège euh, euh, mairie Barthélémy Dias ñu jàpp leen waaye Barthélémy Dias bu dee ne moo daggate woon xale yi ñu jàpp ko lii mooy dëgg ci laa la ñuy xaar nag waaw maalo koor men nañu waxante dëgg men ñun dañuy saay saay dañu mer waaye dañu mer man heure bi waroon fi nekk ñun ñu war a toog dégg nga di seetaan ñuy liggéey ñu koy ñu koy dénoncé ñaan gaa yaa ngi liggéey waaye ñi fi nekk di tappale tamit ñuy gis ni justice mi ngi def liggéeyam ci tappale yi parce que at article quatre-vingt daf fee am wala ngeen dindi article quatre-vingt bi sànni loolu dong laa gis dégg nga ma ni Azoura bu saagawee jomaay ngeen dem jàpp ko tëj man loolu laa gëm dégg nga loolu laa gëm ah dégg nga waaye keneen tamit bu wee jomaay wala sonko tamit ñu jàpp ko tëj man loolu laa gëm buñ ko tëjee bu ëllëgee bu génnee dana xool nu muy def ma indil ay lay man loolu laa gëm de man gëwuma man di nekk ci benn côté ñu may faral di noggatu yeneen askan man gëwuma loolu maanaam ñi may faral man c'est parce que moom laa àndal wala sonk laa àndal wala yooyu ñu may faral bëgguma ko su ma defee lu ma warut def jàpp ma ngeen tëj ma ca loola waaw mais keneen tamit warul am beneen privilège bu boobaa nag ñoom danañu xool la ñuy wax azura bu boobaa dana xam la muy wax buy ubbeeti gàttam gi dégg nga bu ko defee coow li du jëm kaw dégg nga ngay gis ay ponk lu magum jëm dégg nga ñu bàyyi leen ñu dem ñëw saaga ba doyal géex ñu bàyyiwaat leen ndànk ñu dugg seen kër ñibbiwaat ah ñibbiwaat bëgg ñoo fontoo naan léegi ñoom seen lay mooy Sonko moo fi waxoon lu ko neex mu wax Macky Sall lan la doon wax Macky sàll lan la doon wax. lépp lu mu doon wax tey mi ngi dossier yi ñu war koo teg ci ah, ci kanamu procureur waaw wala déet lépp lu mu doon wax rek mi ngi ci kanamu procureur ñu ne relevé de compte gis nañ ko xaw ma euh, bu mat milliard léegi nag ñoom ne ñoom weddi ñu de weddi ñu de waaye nee nañu loolu nekkul mën na am mu ne mu nekk six cent milliards est-ce que six cent milliards yooyu moom moo ko moom moom mi ko def ci compte am même bu nekkul mille milliards yi exact mais lii lii yëfi doomeeraam la mel. nañu waxante dëgg ay benn milliard dong laa la wax dafa war a nekk foo xam ne waru fa nekk benn milliard milliard yi mu mujjee leb nee na daf koy def ndax élection may bëgg a ñëw mais waa banque bi ko ko lebal ñoo ko tey parce que ñoom yooyu la ñu bëgg pour jaxase réewu jàmbur yi dégg nga mën a ndax loi bi dafa leen wax ni leen bu élection jubsee dégg nga war a kuy lebale waratoo leen lebal dañ ko war a téye léegi ñu gàttandu ko Macky Sall ne leen non kon du ñu mën a fay bor yi ana xaalis boobu tey lépp la tonni yóbbu dégg nga waa banque boobu noonu bu ñu réglé si ñoom ak suñu problème nañu génn ci yooyu yàlla bëggul dégg nga ñuy dugal ci réew mi ci riibaa ñu génn réew mi ci riibaa parce que riba la système bi ni muy doxee dañ koo teg ci ay lal dañ koo lal ci ay riba te réew mi si boppam yoru fi loo xam ni waroon naa mën a yoreel kenn parce que ay doomi xaraam ñoo fi nekk Moustapha Diakhaté muy wax naan Jomaay euh, euh, euh, day dafa yaakaaroon Jomaay dana dana dana dana Senghor Senghor lu tuuti loolu bu ko defoon mu nekk musiba de Senghor moo tay la réew mi dugal ko ci ay affaire boru riba yu bon te réew mi am na alal am na jën am na suuf si nangu am na lépp Senghor moo ñu yóbbu fii ñu nekk bu bu bu bu Basiiru doon Senghor Senghor lu ñëpp koy abal Senghor dafa baax ñu naan ma ay Senghor Senghor lu di fontoo nit ñi Senghor fan la baaxee wax leen ma fu sengoor baaxee nañu waxante dëgg li yàq réew mi foofu la commencé dugal ñu ci ay système mondialu bor yi ñu ñuy dugal di tegal réew mi dégg nga intérêt intérêt bu ci nekk rek day day daal di nekk réew mi ñun buñ ci d'accordé mooy euh, euh, dugal nañu réew mi ci lu xaraam dugal nañ ko déjà ci lu xaraam parce que bor yi intérêt yi sax moo ëpp bor yi dalay jël ay at yi at pour nga fay intérêt yi bala ngay fay bor yi ah léegi ñooñu noonu dugaluñu Sénégal ci guuta demal lebal Macky Sall milliards yoo xam ne da koo tonni sàcc ko feeñul fenn bi ñu ñëwee war a gouverner dégg nga milliards yi kenn mënu laa fan la jaar waa wala déet waa wala sama waay nañu waxante dëgg fii li fi nekk saa dara changé gu fi gaa yaa ngi góorlu de Sonko ngi góorgóorlu façon nit ya fa nekkoon tant que changé wuñ leen indi xale yi comprendre muy ci police bi di ci gendarmerie bi am leen xelu am leen xelu képp koo xam ne jàpp ngeen ni kii lu bon la ci système bi ngeen ngeen tonni ko dégg nga jéem fee tegaat lu lu bees lu bees amoo ko fi de dégg nga Doro Gueye kenn moo ko rawale benn benn ku nekk ci armée bi moo ko rawale noo ngeen ni ma système bi changé na dem rawale ko ba noppi tëdd ci kaso bi nangu leen xaalis bañ ko jox ak suuf sa lépp ngay ñuy nangu parce que looloo taxoon mu def li muy def mais bu ngeen ko tëjee ba noppi bàyyi kook xaalis ba ak suuf sa tamit bu ëllëgee keneen day defaat la même chose loolu laa gis mooy dëgg keneen day defaat la même chose réew mi noonu lañ leen def ñoom dañuy sàcc ñu tëj leen waa léegi man def naa fii ci réew mii vingt deux ans tey dégg nga est-ce que am naa ñaari milliards est que am naa ñaari milliards léegi suma ma ni tey su ma sàccee ñaari milliards toog fenn dix ans muy ci kaso bi bu ma génnee continuer lekk sama ñaari milliards kon du ma ko jaral waaw wala déet nañu waxante dëgg waaw wala déet ah dégg nga mi ngi noonu nag système bu bon la ñu yor te war ngeen ci def ay jéego loolu mooy dëgg système bu bon lañu yor te war ngeen ci def ay jéego lii kese la waaw amul leneen buma kenn indil ay waxi kasaw kasaw wala fii la xar yi jaar wala nag yéeg mbote yi laa la wax Deng, nañu jël mbir mi ñu yar doomi xaram yi ñoo fi nekkoon di boukelé amana sax ñen ñi ay nervi yu ñu jappagul la deng ñu ñëwaat toga ci télé yi di saga suñu leader nanguwuma ko te duma ko nangu tay waaw loolu moy deug duma ko nangu tay duma ko nangu gannaaw ëlëk way yow pour la loolu ay doomi xaram yi tekkiwul dara ñu bëgg leen bayyi ñuy lek mburu suñu digg bop yi pour lan arma jaar fi sa am luma jëndal xalé yi Why Why Oh yeah. Yeah, hold on. Hello. Yes. Yes, uh, I'm gonna need a, a dozen, a donut. Dozen Yes, it's gonna be uh, uh, six chocolate uh, prostate. Six, yeah, six of them, chocolate frosted. Okay, And then, and uh, three double chocolate. Right now I have only two double chocolate. Okay, put it, put in it. Okay, and photos. Okay, okay, how much do we have now? 12, right? Okay. Hold on. It's a uh, six chocolate sprinkle, right? Six chocolate process, right? Two double chocolate. Yes, four more. Four more. Okay, put the two pink one with the sprinkle. Okay. Okay. All right, let me see. Uh, okay, just put uh, the rest of chocolate process. That's it. Chocolate sprinkle? Yeah, yes. All right. Yeah, I'm, I'm, where was that? That's it, right? That's yeah. it. Okay. maa ngi jégalu damay jënd fii quoi te fii fi ni dawalee ngay jaar pour jënd waaw yow dafay yomb ba mo ëpp dégg nga bu bu kenn bàyyeeku bàyyeeku amagu fi hello how much ok alaikum sorry about that I'm too far All right, thank you. Uh, you too. Okay. Okay, doc. dégg nga ñu bëgg maa indil ay wax ah ay mag yu nekk fii saay ci réew mi c'est parce que privilège yi dañoo nangu oto yi ah oto yi ñu doon dawal di tëdd di jaaxaan ñu leen ñuy fay dañ koo nangu ñu am lu leen métti ndegam ñooñu ñoo war a mën a am fulla jëlle la naa ndaw ñi nag jëlle la naa ndaw ñi nañu téegal seen lu bon ñoom ñëpp waaw nañu téegal seen lu bon ñoom ñëpp laa leen wax waaw man gars yi tamit ay wàll yu lañu quoi dañ maa tere saaga comme ku sell ki tere nañu saaga ñu ngi jéem a mesurer suñu wax bu baax a baax non du caaxaan dégg nañu ndigal nag wóor na yàlla dégg nañu ndigal ak ñoo dégg ndigal waaw nguur gi ñoom seen bopp ñoo buggul ku leen ñuy défendre di saaga doomu aadama yi te loolu yi dégg la waaye nañu leen nañu utiliser affaire yi article quatre-vingt wala saaga yi génnaat waaw xorom ca nekk sa kawlax ñu dem jëli ko dégg nga ñëw indi ko fii teg ko fii préparé leen nda loolu neexu leen dañ ko doon tere noon neexu leen di dégg nga xorom ca nekk kawlax dong lañuy dem cibb ko bu baax a baax waaw di leen ko dóoral nice ñuy dégg jàmm du loolu lañ bëgg ay ca nañ ci dem na ko dal na ko dal laa la wax waaye yow ay ñuy waaye ñii dañoo xam yee la doone xaram yi dañoo xam luy yee la di nekk fii di néegoo ak ñoom pour lan loolu ay nekk fii ay pas yu dem ba dellu si ah gër bëgguñu xam sax ngër lay ngërëmu yàlla ñoom nañu toog ñuy sàcc alalu askan di leen ko séddale ah c'est parce que loolu jeex na ñu ni dañuy saaga yéen ndegam yéen yéen ay mag yéen ay mag yoo xam ni seen jaaf yi sax bi jaaw na doome xaraam yi nde seen jaaf yi sax bi bi jaaw na jëlle na naa ndaw ñi nag léegi nag ku sell ki dafa tere xale yi saaga moo tax boo xoolee saaga wuñu seen ndey yi dégg nga ndax loolu da leen koo tere dégg nga lii nag lu jar a jóg la te nag ñu wax ci waaw ci lu ñu war a wax la nag waaye yow pour lan loolu ñii dañoo xam di dañoo xam négocier kenn du négocier ak ñoom nañu tégal seen maam bu baax a baax ñoom ñëpp article quatre-vingt nekk fi boo ma bëggee taaga boo ma bëggee tere saaga dangay ngay utiliser article quatre-vingt waaw boo ma bëggee tere saaga utiliser article quatre-vingt point barre waaw doomi xaraam yi dañ leen war a bàyyi ñu toog seen kër amaana ñoo nekkoon ci bureau yi di yalwaan suba ba ngoon ñu leen ñu jox xaalis si sénégalais yi te nanguwu ñoo liggéey ñu ni noonoo léegi dañuy dem ci eh, plateau yi dina mu tuddati di saaga foofu noonu CNRA moom amatu fi moom parce que CNRA yu ñàkk fayda la doon lijjanti lii dafa mel na gars yi dañoo éliminer CNRA moom éliminé nañu seera CNRA wala waaw wala de loolu laa amoon ci lu ma doon wax men après dinañu gën a génn continuer ñun di fësal suñu projet lépp loo xam ne lu baax la lu ñu war a lu ñu war a xamal sénégalais yi ñu def ko dégg nga powu ndaayaan baa ngi noonu gone yaa ngi noonu di dem di joxe seeni CV te dañ la ñuy jël fii amatul maanaam yow lañu dénk ay say mbokk ñu ngi ñëw comme affaire Cheikh Omar Anne yi amatul fii li ma gis sénégalais lambda yi dañ leen woo ñu indi seeni CV ñoom ñëpp seeni kayit pour liggéey nga gis ñu koy dugal ci bërigo ca mbeddama la ñu taxaw ndax bañ leen soxlawee tamit noonu la demee woon kon réew mi changement bu bari am na fi bu ñu doomi xaraam mi fontoo ay imbéciles yu tekkiwul dara bëgguñoo ñoo fontoo duñu ko nangu waruñu koo nangu it loolu mooy dëgg waaw réew mi changé na de moom lay woo sama mbokk activiste yi di leen wax ne leen gouvernement bi ñoo ko mën a jàppale ci créer emploie ñun ñoo ko ci mën a jàppale waaw pour créer employé ñun ñoo ko mën a jàppale non kon nañu ñu jàppale leen mooy jox xale yi liggéey waaw xam nañu noonu lañ koy defee kon sama gars yi jaa ngeen jëf ñu yendu jàmm